asalaamaaleykum ahlu muslim al asan sekk bu Dakar ñëwati ci histoire aaxiru zamaan ci biir Sénégal ci territoire bu ne muy dem ba Congo Gabon dem ba Espagne Allemagne réew yi àdduna mu di ko wër doo dëggu yàlla ci alxuraan islam li araam ak li dagan doomu adama bu jaamu yàlla day war a xam araam dagan yéen xamu leen araam xamu leen dagan lu leen neex dagan na lu leen na am na njaaloo bi bari lool ak fen yag rambaaj yi ngeen di warante di defantalu ñaaw defantalu bon bañ ku leen ko wax yàlla ni borom xam-xam yi wax leen bu ngeen waxut ba dee yéen lay la këll ak jaanama inna sikku laay ten fool moominiin fa sakkir inna faati sikra say sakku man yax saa addis ba ni sikkuru laayi mooy yërmandey doomu aadama mooy njariñul doomu aadama kon bu ngeen bëgg di dem àjjana bëgg a dugg seen gaalu ko àjjana bu waram ragal leen ko gëm ko li mu araamal ngeen ba ko li mu daganal ngeen def ko yéen yatta doon ngeen def diine julli koor dem makka jeema te yàlla ne julli du teemal ak kala sawara koor du teemal ak kala sawara dem makka du teemal ak kala sawara am na ñu juddoo makka yaroo makka dee fa makka bañ leen suulee ñu nga sawara am na ñu jóge fii dem makka ne yàlla bëgg a dem makka defuñu ko ni alal joram du dem makka alal sàngara du dem makka innal maali saarixu alal joo sàcc du dem makka alal jirim du dem makka alal boo ko bàyyee ci tool na tooka saka du dem makka te lu neex ngeen def ci dem makka ngóor jigéen dana dem makka jigéen doomu jëkkër di dem borom alal joram di dem jaay ko tu sàngara di dem nga gis nit rey nit nangu alalam dem Makka tàmbu kaam ab jirim baayam dee wala ndeyam bàyyi alal mu sàcc alal yóbbu ko Makka tàmbu kaam Makka yëpp sunu borom ne ngelaw la duma ko fay yéen a dégg ku dem Makka dem yàlla ni damay bañ makkatal mu am na borom booy dem makka di jigéen amul ñeen fukki at ak juróom benn yu mat booy dem makka di góor juróom fukki at ak juróom ku am juróom fukki at juróom war nga ruus soo mooy yàlla ku am ñeent fukki at juróom benn di jigéen war nga mus war ngaa ruus soo mooy yàlla waaye doomu aadama du xam loolu weex tàll ak bi jaaw di mooy yàlla réew moo dem ma nga fa Sénégal jigéen amoo jëkkër nga jigéen bëggoo jëkkër ngay jigéen jongoma lool taaru ku leen takk nga lank nga départ Sénégal ni makkatal mu nga jëm yàlla ne boo dikkee duma la nangul dangaa tukki waaye duma la fay ndax yàlla nee na jigéen balaa am diina am jëkkër yaa ayyuha naas ittaqu rabbakum lazii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa ngeen lank ak ndaare ulamaa yu leen luxutaab yu digal leen ngeen lank biiral baa ngi bari ba mel ni xar hmm. biir ak ki bëy ak ki fas kër goo dugg Sénégal biiral a nga fa koo biiral nga tag ko sëy ba du dagan soo ko biiralee teg koo ko moom ndaw su ba dina dootu jur ñetti doom dootu jur waliyu dootu jur yonant dootu jur loxutaab dootu jur abi diin ku baax sax ku ñu sow dootu ko jur te yàlla dani dama leen a tere njaaloo tere leen du bon tere leen aw fen nu mu leen ko waxee ci alxuraan yaay wàllu si na amanoo laa taqarabu hoo bu leen jege si naa njaaloo loolu nag weer fees na jamono léegi jigéen bëggatul jëkkër góor bëggatul jabar te kon boo jaar ngénte yaa ngi si xale bu góor boo ne takkal mu ni jabar day estondi nit jigéen joon nañ la takk mu ni jëkkër baras la yéen kay kon yéen a ngi ci gaali bakkaar te nanguwul yéen a toog du yéen toog suuf yankew xale bu góor boo gis jongoma ji mu fanaan la bëgg du ko takk jigéen doo góor gu mu fanaan la bëgg te du ko takk kon kay bu ngeen ne réew mi réewam diine la diine ja dafa am ñu ko am am ñu ko am doomi sëñ Tuubaa am na diine ab sëtam am na diine doy naa laaj am na diine ab sëtam ak ku mu yar ak ku ñu defar ci Tuubaa Tiwaawan am nañu lislaam waaye ponkal moo xam ne xamul farata xamul sunna di ponkal mu day ni bàyyam nangu la takk jabar nangu la am lislaam bu ko may ak maandu amul benn xale bu góor bu man a toog ñeen fukki guddi laalu jigéen amul benn xale bu jigéen bu mën a toog fukki fa juróom laalul moroomam loolu moo ma jaaxal man ci islam bi te ngeen di wax ay jullit ngeen yonent bi nag nee na ku biiral jigéen teg koo ko di dem sawara ndaw sa dem sawara doom ja lu mu jaamu-jaamu yàlla du dem àjjana du dem sawara raaf lay dem téeni ngi nii amul kenn ku nangoo takk da ngay biiral jigéen ñu ni gannaaw biir na nañ ko ko may yàlla ne maa ko tere jigéen ku ko biiral teg ko ci kaw biir di nga dem sawara jigéen boo ko biiralee mu ci ndu der ñu may la ko ilimaan jara ko doon may la raaf laa koy tabbal doom ja lu mu jàmm-jàmm yàlla moo ngi day jaag bàyyi ba du ñu dem àjjana lu tàngeen ngeen di biiral nag yonent bi ni ku biiral jigéen amoo jabar nañu la dóor téeméeri yar assaaniyatu wa saaniya fasjudu kullu waahidin mi'ata jaldatin léegi nag bu ngeen biiralee da nga naa ginnaaw biir na nañ woote waxtaan waxtaan amatul foofu yàlla dani teg leen alxuraan si mu àtte woo nañu dóor ndaw si juróom-ñaar fukki yar dóor waa ji téeméeri yar Sénégal nag amul benn dëkk buy duur duur yoon xanaa benn dëkk cere ba boo biiralee ñu ne gannaaw biir na nañ woote waxtaan bàyyi Mor Ngom nijaay Baara Jaw bàyyi ma Samba nijaay Mor nijaay Ibra ñu dajale waaw lu ngeen xam ñu ne ah a tooñ day Mor tooñu Nogay a tooñ Nogay ñu moom waram jëkkër ndeyam ak bàyyi war ko maye may wuñu mu dugg néeg wala mu dégg dugg néeg Omar Fall mu xaw ko rey kooku kay moo tooñ jigéen daawul fekki góor bu jëkk léegi jigéen daawul doxaani waaye léegi jigéen ñiy doxaani da ngay defar sam néeg jënd sab lal cent mille jënd sënk ganaay jënd lal yëpp teg dégg nga mam amoo jabar de waaye ndeela day ñëw ami ñëw xujje ñëw màgg ñëw ku dikk nga dóori dal ba sa sedd mu dem yoram sawaa nga may ko sawaa doo ko may bu la ndaw si yeggoon ak sàcc la ndax càcc moom bari na waaye yooyu yëpp yëfi yëfi nit ku naafiq rek la yëfi ku dul julli lu araam li ne bu leen ko bàyyiwut bu leen bëggee dem àjjana te na ngi ni kat murit beeg tiijaan beeg xaadir bi ñëpp koo xam ni damay dem àjjana mel na àjjana sa bàyyi ko moom yàlla tabax àjjana moom ko ni ko maa ko moom jaamu leen ma lu xutaat yi li ñuy teg kenn daju ko ñu ngi tëdd yëngoogut sëñ tubaa ma nga tëdd tubaa yëngoogut alaaji mal tëdd taan yëngoogut limaamu sëriñ ceena ba ceena ba buukul na njaasaan bàyyi ñes kaw lax seexu fall mi liggéey ba gar bi wax rasulullah mi gën ku ñu bind ma nga tëdd madina junniy at ak i téeméer wëlbati koogul ñun ni naan rek di doxaan njaalo bu ñu leen di ko def sa jabari morom nga war se jabari xarit nga war sa jabari mag nga war sa jabari nijaay nga war sa xaritu benn ba takk jabar dem États-Unis wala Côte d'Ivoire wala Congo wala Gabon nga ne say ñam ba mu biir ñu naan ko nëbb moom nee na lu ma gis lu araam pencam yàlla lépp lay àtte fi yéen kanam man xaw ma nan yore jigéen moom fukki at yu man ki ñett ngor ko bam ñaar fukki at juróom nit di nawleem tukki penku yóbbanteeli téeméeri junni ñi may naa ko fukki junni may gu jëkk wala ñaar fukki junni nga jox ko may ko jabar takkal ko defal ko lépp mu di këram nga di ko jox jigéen joo xam ne ji njaga joo xaw na ko rey wala daam ñi ngi mbay Fall wala Omar Ndiaye nga jox ko ko nag moom mu yor jabar moom mu yor jabar saa bu tukkee jabar ca gàddu dàllam damay seeti moor bi damay seeti ngañ bi damay seeti demba wala mu ne maa nga jëm ndakaaru Sandaga laa jëm Sandaga nag moom mooy capital musiba mi sagar yi caaga yëpp ak sagar yi naa sëq yëpp fu waay xëy rek ne Sandaga te boo demee Sandaga kat ña fa fulla ñoom ñu nga yor seeni taabal di jaay yan càgga yi nag ñu nga waree def xotti taati neen ponkal mu day ni ndeem war a sol tubéy ju baax jigéen bu njëkk aw awraam daawul feeñ waaye léegi jigéen ñi ku la gën a jong ma ñoog ba yeeg xar yeeg nag yem moo tax benn góor xemmamatu leen jigéen kay daal daa romb yor garam bu wala robb wala marinière bu jot sol aw dallam mu suuru romb la yor mu soir nga ne xàq ah sa caay waa ji jigéen moo moo rafet lu mu def waay waa jigéen joo xam ne ji dana rattax mel ni góor ñaari xale yu góor yu ànd mooy ñaari jigéen yu ànd léegi jigéen ju la gën a jongo ma gën laa di xott taat nangoo tula sol mbubb nangoo tula sol ab sér duutu waddu day def pantalon daal taat bi ni fàttu fàttaral da ko yor mu dox ba mu ñàkk tooy mu dox dégg man di rogala ci tànkam ku nit xool nan tey waa ji ndaw si li mu sol ni mu tilime ak ni mu ñaawe yu bon yooyu nag ngeen bëgg di ko def moo tax doomu aadama yi dara mën na ci la tax si lam dugg seeni nopp ñoom daal ay fuural ak ay xumbal ak yu bon yu ne dañ ko wax rajo bi sax nu leen lañ ci wax loo xam ne lii dafa ñaaw te doomu aadama yaa ngi koy wax ci rajo bi taman léeg-léeg ma dégg ñu naan oustaz Seck wax moom waru ko wax am na lu gën a xaraam li may wax gën koo ñaaw ngeen di ko wax yëkkatil sa tànk ma xool sa pointure loolu mooy lan loolu kay taatil ne ni jàmbur nga bëgg a xool naam ba ak naam mu di jaw laajal xale bi fuy metti nga fajal ko ko bu mettee bu ko fajee mu munu koo faj nu muy def yu ban yooyu ngeen di def nag ak di ko wax man maa ko wax di xulul islam ku feebar da ngay dem hôpital te met seebar ni ko sa bopp day métti may la doom sama ndigg day métti may la doom saak faar day métti may la doom wala saab tànk may la forote waaye fuy metti ma fajal la waa boo ko ko fajalee boo mettilee kan moo lay fajal yu bon yooyu nag ngeen di bañ ko ko wax dama koy wax am na leneen lu ngeen di wax yu bon a bon bon a ñi jigéen ñi jigéen ñi moom fi na ne lekk lu bon rek lañ bëgg boo leen nee naa la takk ñu naa doom a takk de yow kay dikkal nu pourcentage ba ca kanam rek nga dikk di pourcentage rek waaw sa morom dikk di pourcentage bu ñu pourcentage nag dégg nga maam ba mu siibaam nag dañuy xool yambar ma gën nooy bopp man gis naa ci benn koñ xale bu yéen boo xam ne bii ay tubaab rek la bëgg bëggatul ku ñuul ba benn tubaab biiral ko tukki dem yoonam mu biir nag daal di woon ak Omar Fall ko ni man xool naa dëkk bi yow dong yaa ma ca bëgg bëgg ma bëgg bu kenn bëgguma ko mu di ko toog ak moom mu toog mu ne ko man damaa gis reekal seen neen waa ji def ni wax na dëgg mu dal koy bàyyi am ñaari fan ñetti fan weer munu ko damaa xëmb te fekk na mën a ñaari weer ak weer yu mu ñetti weer bi mu toogee ba am juróomi yenteel ba ku fukkil mu ni mu xëy dégg nga ma am doomu tubaab tubaab boo xam bët yaa ngi weer weer yi mel ni bëti muus kawar gi dee weer weer yi lar leer gi di nga mel ni kawar ak fas léegi ngeen kooku boobu doom boo ma ne yaa ma diiral te du man du ma wut aw yat dóor nga bëggee bëgg a dee wala man la du ma la ngénte yu bon yooyu yu bëgg nag dañu dul bëgg seenam nawle bëgguñu ko ragal yàlla bëgguñu ko jàngal xuraan bëgguñu ko gëm xam-xam bëgguñu ko sëñ Tuubaa defar bëgguñu ko la jumal dafa bëgguñu ko am islam yambar mu leen di nax lañu bëgg damay dem France Congo laay dem damay dem New York Italie laay dem damay dem Espagne wax dëgg yàlla koy dem Espagne kay te bu dikkee ba ba may dem du ma la may cent franc du ma may say téeméer du ma la jëndal attaaye boobu dem dem Congo boobu dem Congo da man sax ma dem jam ñaar ya am lu ma lay jox moo ma gënal waaye naafeq yooyu ñu nekk ak monsieur bu nekk moom lañ leen di naxe te loolu yi fay kan mooy doomu aadama yi ne ci toroxte ba yàlla jéppi leen jippiti goo xam ni lu ñu yor mu yàqu àll ju yor du barkeel léppay seey wala nga feebar di ko fajoo ba dee wala nga war àll ñu sàcc ko wala nga xëy mu lakk wala nga xëy am gan goo xam ne xamoo gan lu mu mu di ko turaan yaa nu dem yoonam nga naa sama gan ga fekk nag alal jooju dee alali aram joox mu ko lekk te doomu aadama kat mënu ko wax dara lu muy xam am fu mu koy tollare ba dugal ko ci diine loo ko mu dugal ko ci maqaram dugal ko ci xolam di la jéem a jéema ko jéem a xas lislaam dafa bëgg lu leer bëgg lu rafet bëgg lu jag kon ko ci la war nga koo bëgg xoolal jigéen ñi fiim ne ak góor ñi bon bon yu ne ngi ci biir barka démb benn xale bu jigéen bu benn waay ni dama laa bëgg mu ne ko maa la raw ndaw sàngee benn portable boo xam ni deux cent mille yu man ka jar waa ji dugg seen kër ndaw semut dara yaay jëmut dara fexe na baaw faram jëndal ko portable am naa faraw boo demee daa bokk ci borom xaalis yu bari yooyu sëpp ndakaaru wala fenn rek ndoxaan ko jëndal ko portable bu war a jar ay cent cinquante mille wala ay cent vingt cinq mille waaye dikk ni ko dama laa noom ndaw si nangu mu dal di dindi diggamam dix mille franc ni ko toggal añ demee ngeen ku la toggaloo dix mille franc te joxe ay ñaari téeméer kooku amul lu mu nar nga daal di fob ñaari junni dem marché nag koobar koobar nag defe ne yaa ci ne nga jël li ngay jël lépp nga dikk waa ji ni la junni ngoog defara koñ bi nga toog ak moom mu toog ak yow laataa ñu nuppi mu dóor lay dàll ngeen añ ñu dóor lay dàll ba cinq heures dépasse sa portable dem yoonam sàccante boobu yi defante mooy yàlla ji def tàll yi ñu am daganut du ñu ko amee nu dagan du ñu ko amee nu rafet bàkkaar yi ci mu suba yooyu lay dugg moo tax jamono bi léegi ñëppay sàccante ñëppay warante xale jigéen yi xale bu góor bu leen woo seen néeg ñu dugg ci néeg ba toog xale bu góor ba génn dem duus wala mu dem bitig balaa dikk moom nu ko sàccal denc ko portable wala ceen wala montar bu foor ndaw sa bu dee waaja daa dem seen kër ndaw sa dem ca bitig balaa dikk waa ji mën na ko sàccu ceen wala montar wala portable bu foor naa ko eggel gisuma ko quoi e nun dajee gel xam nga man rus naa sàcc quoi yaakaar ni du moom mu dem jaay ko ne ci xas dikk portable ba nga yoroon moom la jaay dikk doxaan la ci xaw laa reyaat door a ñibbi siiba yooyu yéen di dugg di ko def seen ndey du wax seen baay du wax te koo gis ci mbedd mi muy waaxu kat am na ndey am na baay loolu du waxi gouvernement du def fi definu gouvernement yëpp an gouvernement bi na gornement bi lu yoonam ci yooyu gornement bi këram la mën a ak li mu liggéey ak tëgal bi mu war a kon bu ngeen toogee doon ay jullit di wax waxantelu ñaaw te dafa aram jullit wari soo wax morom jëlu ñaaw ginnaaw war la wax sa morom lu ñaaw nag ngeen doon ay jullit ba noppi nag dugalu leen ko ci diine bu mën a sotti ndax yéen da ngeen di wax ay jullit ngeen te seen kaddu li mu génne ci seen gémmiñ doonul kàllaamay jullit ndax doomu aadama dangaa war nit askor wala nit day ab taalibe la wala diw ak a lislaame waaye ngeen di wax baat yoo xam ne bu ku ko dégg day xam ne yéen ñii da ngeen di fo rek baati coof laak baati di diw sama sama sama sama waa ji rek coof la coof moom mooy lan coof si géej lañu ko xam yaari jën mooy kilifay jën yi coof ak jariñ waaye yabayoo ngot dara du ci jën lekk ko ñàkk pexe la kon bu fekkante ne day doon coof ci yow nga fonk ko ba mu guddee la def lu bon di la wax lu ñaaw di la ko def nga am naqar kooku kay du coof coow daanaka kay cax lay doon coow wala yaboy da ngeen amul xalaat nag moo tax ñeen di fa yu fi adduna yooyu yu bon yi ngeen di ko bànneexoo fab dëgg nag sànni ko ci àll ba xoolal jamono bi jigéen ñi kenn nga tula waddu jigéen ju la gën a jongo ma day sol pantalon lu mu ko jiitale wala yéen mu bu ndaw bi ñu wax day sol silib silib ba ni wàcc ci ndigg la fu mu la romb di ko seen mu foog ay teg ca kookoy taatineen la góor gu bëggee jigéen yaram wa sangut jumbux baag taar baag wenn ni fang ci bit góor googu lu mu doyee si dundu jigéen day maye moom yàlla rek wala mu def moom neex ba ko mu dem yoonam waaye léegi takk jeex yanantu bi nit ñi mu dugg jamono jigéen dam lislaam góor dam lislaam ñëppay sas ak sobe sangu janaaba duñ ko def xoolal xale yu góor yi xale bu góor bu la gën a ngande war laa doon doomi ku baax war laa doon doomi kilifa yàlla mu neen lay def tubay jey rot nga ko mën naan <laughs> tubay ji rot nii lii lii moo xew léegi quoi tubay joo xam ne bu rotee say taat ni si biti boobu tubay kay bu xewee mu siiban na taati neen bu xewee kay koo dajil mu umu nit daa war a sul yi rafet xale bu góor da daa def jalañ ci biir kër ñu ne ak ah, sa waay waay bu góor bi mu silisé waay waaye léegi ku jariñ ci biir kër taxaw bandi ngay muru bandi boo xam ne kenn du wóolu dugal néegam boo duggee ci néeg bi roje ko sàcc ko loolu musiba la ginnaaw loolu yéen lu ngeen di ay jullit doon ay bokk ba noppi du ngeen wóolante du ma ci bëgg dugal Ablaye Wade mii di président loolu réew moo dem président ba ñëpp a ko fonk kenn ñi mu koo coxoñ kenn ñi ko tudd baat kenn du ko wax dara lu ko wër sa wax ñëpp dañ koy fab di ko bëgg Ablaye Wade daw Marwa ak Safa sànni jamra dem Minam taxu Arafat rey am xaram jéggi ko dem ngir Rasulullah del si Sénégal mag ndaw ñu ci gouvernement beeg ñu ci lépp yam mel ni Ablaye wadd déglu seen kilifa wala déglu seen njiit mënuñu koo xamee ci Ablaye Wade xamaa na Ablaye Wade dañ leen a goyewu rek waaye lawbe bu bu jaay mbaam dem ak sax bu dikkee lawbe ni ko alaaji pël bi bu jaay na aw nagam dem ak bu dikkee ni ko alaaji yéen Ablaye Wade njàmbar gi mu def yàllaa koy fay ak seen ak ahlul islam waaye yéen du ngeen ko fay Ablaye Wade jonnoon den tag kenn toog di am xalaat yu ñaaw yoo ko war a wax wala yoo koy def ak koo mën a doon ak ku a jur amoo yett amoo teggin amul ab yar amul ab xalaat bu rafet ndax ilimaan ji ku toog si buntu jàkka ji di wax ilimaan ji lu ñaaw noddukat bi war na laa yenu dóor fi suuf ndax noddukat bi moo taxawali ilimaan ji si buntu jàkka ji kon bu dégg na ko naqari laata ilimaan ko dégg mu di ko war na koo faj adduna ba muy baax ku ma saa wax buur benn baat joxoñ ko ko ndaw yi buuree ñooy seet ba ni la nuus dugg na fi war ni la ràpp tëj mbaa ñu duuma la ba nga saw sa tubéy wala bu ngeen amee parasita ku ne di ku këllëkëlee yaar leen dal da ngeen a ngeen bon mbaa ngeen ñàkk xam-xam bu rafet wala ngeen ñàkk dégg ma yërmande man nag foofu laa yem Ablaye Wade man fonk naa ko guddi fonk naa ko bëccëg jataay bu ma toog jar na ma xuloo jar na mu xeex ndax man da jar na ma xeex ndax Ablaye Wade dafa def ngor gu ne ku yàlla bindi Sénégal Ablaye Ablaye Wade dafa na la ngor goo xam ni boo goree boo amoon tool baax nga war a dem yomb ca tool ba di béy ba diggum yàlla kon nag bu ngeen demee ay jullit di jaamu yàlla xamu leen ku baax xamu leen ku bon xamu leen ko def lu rafet xamu leen ko def lu jag ah mas ngeen fee toog bu ngeen tëddee ba guddi kenn du génn si ay timis si noor mas na fi ni timis ku génn si ay ma tëj la mbaam rey la muy kawut nga xam ne bii si ngoor a ko defan kooku moom ragal leen ngéem ko ab séeréer la wolof nag day bañ wolof njaago day bëgg njaago bambara bëgg bambara saraxule bëgg saraxule tubaab bëgg tubaab waaye wolof moom fu morom jona naan rek wolof bañ na ko nag ngeen a goddut nag ku ñu ko am ngeen mer nag boo bëggeen mere ma man munu leen maa rey munu leen maa tëj munu leen maa alal munu leen maa alal at mu ne ma xëyoon dëgg koo xam ne ba monde bi daj ku ko di nga xam ne wax naa leen dëgg jaamu leen yàlla taba font yi jigéen ñi am jëkkër góor ñi ami jabar fii la sëñ Abdoulaye Mbakke magi sëñ Saali Mbakke roi du mouridisme sëñ Tuubaa pire yëkkate baat mu waa bëgg may jigéen ñi ñaari téeméer ngeen lank ak ndaare te boo toogee ba sa doom biir lay lay wax ka ko biiral danga ko naa ginnaaw yaa ko ëmbal ah dee fi dikk bul toog moom mu daal falu moom biiral na ndaw si tëkkul dara du joxe sondeel du joxe dépasse du joxe mbubb du joxe dara ordonnance bi ndaw si wuti sax nga dikk ay yaay ginnaaw kii dama ëmbal nangu na ko ku la ëmbal nangoo ko kay war naa yenu la war lépp waaye yaa ko mën mu ne hihi maa ko ëmbal lay da hihi man de liggéeyu ma mu liggéeyul loo koy doyee kuy bëggee da nga bëgg kuy liggéey moo tax alkandeel yi dal ñoom ñi nga am loo leen jox bëgg leen am loo leen jox boo demee dañu lay jaay ngan rek goo xam ne gii day mel ñoom duñu laal waaye bu dee yambar mu leen nax maay dem Gabon Congo maay dem Italie maa nga police maa nga centrale maa nga gendarmerie te kara ba ñu leen ramassé li ñu du police ñenn ñi naan man damaa yor parking quoi am na benn xale bu yéen boo xam ne bii ci damaa yor parking rek ko biiral xale bu góor bu ñax njaasee jaw xale bi yéen bu ñu xale bu góor bu ñax njaasee jaw ëmbal xale bi yéen digamam ci dend ak ñetti mbaar ku ñax fàtt sàmb ba ko ëmbalee dafa ànd ak moom ak suba départ dem ba ca parking ba ca padduwaa oto yu bari yooyee mu ne ko yëpp malin moom ndekki wóy te nax ndaw si ndaw si dema dema dem bam juróom benn weer cëmb bi daal di dangaaloo seen kër ni damay seeti ma sàmba daal di dikk salaamaaleykum ah jàmm ngeen am ñu ngi jàmm rek kanam mu ni ma sàmba sàmb laay laaj ñu ni ko ma sàmba sàmb mu naa mu ne ah kooku ku mu moom day nee na mooy borom parking bi nee na mooy borom parking bi dafa am sax benn oto bu mu war a jaayi xaw ma mbuur xaw ma waa ko ah man ñii dama am moom parking bi te ma ma sàmba sàmb yow moo tudd mu ne ko gannaaw tur maa ngi dem déggal gis nga kooko koy laaj ñàkk na koy teggin te kooko moom moo moom parking bi moo tax jigéen ñi ñi leen di nax dong leen di xamal njariñ waaye ñi di teral dañ leen di teral ba bañu dee buñ tedd ndax bëgguñu teraanga kon askor bu bëggee ku koy teral na nangu ko ko wax dëgg may leen jigéen ñi waaye mu siiw ba mépp nag mu ngi dal ci borom kër yaay yeg ndey yeg bàyyi yow jur nga sa nga bàyyi ko ni ko damaa bëgg nga am jëkkër loo yaakaar ku dikk may ko téeméeri junni juróom fukki junni yow xamoo xaalis bi mu ko may da koo sàcc xamoo xaalisu gouvernement bi la xamoo dafa dem Paris sàcc fa cartable wala mu sàcc faalal ñëw dikk di nga moom takk sa doom bu delluwaatee ñu ne ko nuus ni ko ci kasu bi doxuus mu ne fa ba dee nga naa kiñ ko may ndeyal taata nga gisuñu ko noo koy gisee ki laa nga yow benn buntu kër bu foree téeméer jox la bu foree trois mille jox la boo ko ne càkk ne comme naa ngénte mu fexe ba jox quatre mille wala deux mille cinq cent kii moo gën xaalis bu am gunge xëpp mu jal ab jal ci sa kanam te boo ko lekkee xamatoo lañ ngay lekk doomu aadama dañoo war a am xalaatul islaam mag ñu njëkk ña da nga daa def salaamu aleykum ñu ne maaleykum salaam ndaw su ne demal nuyu saa bàyyi nga nuyu dama nuyu sama yaay nga nuyu yaay nuyu bàjj nuyu maam nga toog bàyyi bi ne ah waaw yow ma nga def nga ne maa ngi fi de bàyyi ni yaay lenge waaw mooy seen nit lenge moog saa yi mu ne ah waaw yow dama laa gëj a gis nga ne man damaa jàng woon alxuraan ah da ngaa jàng mu ne ah mu ne maa mokkal nga mu ne waaw waaw waaw luy say tànk mu ne ah man damaa yor mu sama yaay sama yaay moom rek la saa bàyyi yor. póot moom fóot sax léeg-léeg ma dimbali ko damaa bëgg dimbali ma jabar laa bëgg mu ne ah boo demee na woo sa baay nu fi ñëw mu dikk ni bàyyi ni la bekk mu ne ko sama nijaay ne na nga ñëw fa kañ la wax mu ne ah tey ak suba ak si biir rek saa boo mënee dem ñëw fa bàyyi toog ba lépp mu dem julli fa takkusaan nijaay ni ko ah, sa waajur de laa bëgg a may doomi diw mii boobu ñun mbokk na laa takk léegi nag kenn takkatul sa mbokk waaw mbaam takk na fas gëleen takk xar xaj takk bëy bëy takk tilli tilli takk muus muus takk golo la ne takkante baa ngi si am na ñoo xam ni sax dégg naa dañoo nga de dem përi kon yi ñu takk seen doomu ni jaay ñu jële fa sagaru tubaab boo xam ni dikk dégg ma mu lu xew na ci biir ñi buñ mel ni goro gu ni ci biir nit ñi du am doom du am dara waa ji gor ba dee rek waaw tubaab bi teg ko bagage sa ñibbi yooyu lan moo ko jar da ngay takk sa doomu ni jaay am moom doom nga tudd ko sa ndey mbaa sa baay muy doom too xam ne ji ëllëg di na doom diw ji diwoo ko fi baax diwoo ko jur diwooy ndeyam diwooy baayam ñu koo xam waaye tubaab boo xam ne boo ko tekkee am ak moom doom sax alku nga ndax moom booy dee muy takk bagage yi doom yu góor yi moom kër gi muy jaay ko départ ak alal ji ñibbi tugal loolu lan moo ko jar kuy takk da ngay sa mbokk gis nga ulama yi ngeen di xool ñoom bu ñu takk ñax du ñu takk doxam biyam ñu takk ku dul seen mbokk du ñu takk ñu bokkul ñu aw xeet yéen nag lu leen yéen di takk ponkal ñu jóge Paris di tubaab xamula war na am doom xamula war sa am doom nga takk ko di nga ne ñu naan lii de jabar tubaab la yor waaye lébi noonu mujj jamono janax yu ñuul ya janax yu ñuul ya mujj jamono mooy léegi jëlaat yu weex yi àll di la jël te nit ñi jigéen ña dañu fab jëlaat yu weex dugal ci kaas di jox muy lekk di jox muy naan yor aw yat nag tublu jarax ju ñuul ji ni naa toog fi ba jarax ju ñuul ji génn ma taj bopp bi ci yéen Sénégal yi ñu bare bare bëggatuñu jëkkëri wolof tubaab rek moo tax tubaab yi genn wàll gépp tubaab yi la ñu àndal di mooy yàlla waaw jigéen ju la gën jongoma man daaw dégg naa benn tubaab boo xam ne ci mbuur mu dul mbuur di ndakaaru dafa jox ndaw si ñetti junni séeg moom ba noppi jox ko ñaari junni ni ko xaj bi day séeg yow yu bon yooyu mooy lan yooyu dafa aram dafa ñaaw ah te boo ko waxee kat numéro la ne loolu kenn ko wax lu bon ku ko def ñu wax ko yàlla dani ñam xam-xam bu ñu noppi waaw nee bu ñu noppee yomal xam ñoom lay dëkk tabal sawara way lun yow ma isin fab ay addisun nee na ñi am xam-xam noppi ñoom laa gën a mere man yàlla ñu ne ko lu tax mun nañ wax suma dëgg gi fa sakkil inna fati sikra sey sakku man yax saa wala tijann ba lu si sara naar kublaa suma laa yamutu fiha wala yaxya ngeen lanka talaare bañ a wax te yéen yéen a ngi taaxu wax ay waxat rajo bi lu ne lay wax lu ne la rajo bi wax ma yor li nga yoroon may dëgër sa doo daanoo lu ne ngeen di wax ci àdduna waaw bu ngeen wax nag yu ñaaw yooyu nag ñu war a wax ci diine nag ñu leen yu ñaaw yi ngeen di wax bariñ ko bu ngeen bëggee càmm li jàll la jëf ju ñaaw wax ju ñaaw def lu ñaaw muy indi balaa dégg naa sànq ngeen di wax bay tudd ay njëréer njéeréer moom balaa la waxuntuma la ngeen di ci tudd dégg mam kilifa gi moom réew mi naan njéeréer di tudd Ablaye a bon yéen a goree di Ablaye Wade moo yéen a yem ci njéeréer yi njéeréer fi ñaari yoon bii ko ñetteel ba fa tegoo sëñ Fallou fi ne sëñ Fallou téye njéer ni ko njéeréer ñeen coow waay njéeréer am ngelaw ñoo njëriñ fu ko neex dem ngelaw fu ko dem ñoo bokk benn yax njëriñ ñetti yax la ngelaw ñetti yax la balaa ñaari yax la baala a laam ak liif gaaj njëriñ jiin la ak ñaari raa waaw ngelaw keef la ak laam ak ñoo yem ay yax ngelaw fu ko neex dugg balaa fu ko yàlla wàccee fa ngir fu ko neex dem seen waxu ñaaw yi wàññi leen ko ngeen ragal yàlla gëm yàlla te jàmm yàlla te bàyyi waxantalu ñaaw yàlla ne yomal xam borom alxuraan day jàng ba dënn bi fees ak alxuraan nga yaakaar dama koy lakk boo rek sama alxuraan déedéet dama naaru seet sama alxuraan denc ko àjjana foog jëmu jooj yàlla ku ko sawara loolu la yàlla wax kon boo jàngee tubaab yaakaar ni doo dem sawara yàlla ne sa jàng tubaab woowee dama koy rucci wala ma boole laag moom lakk sawara ndax man tubaab daf maa weddi weddi sab yoon tubaab mën na ni laa ilaha illallah waaye du ni muhammadu rasulullah te yàlla ne génn gunu ngu tax laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah yàlla ne loo jaamu-jaamu yàlla boo faatoo ma lakk la ndax laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah mooy ceeb bi àjjana soo mënta julli mun laa wër mun laa def dara sax saxoo ko soo dee yàlla duggal laa jër ndax yàlla nee na yonent bi sama xarit la mooy man maay moom lu ma bind lépp moo tax rasulaay mooy saydi kulli man xalaxtoo nga xam ne moom ci boppam bu ko wax bi mu ko wax da koy jàpp xalaatu bànneex ci bakkanam doomu aadama day war di xalaat xalaat bu rafet di wax wax bu rafet di def def mu rafet ku ko xool bare ko ci yiw yi léegi jigéen ñëwatuñu góor ñëwatuñu ci ban message nga koy xame xale bu góor ak bu jigéen mu ñu taxawee néewuñu nan àndi dem kër ga yaay gis bàyyi gis xanaa ñu taxaw ñoom ñaar ci benn koñ ndey du wax bàyyi du wax fu ñuy reere ak fu mu war a aw ndaw su ñu ko yow yaay bañ góor bu bañ a tuukay mu fi bam na loolu jàll ngay jigéen may jigéen may góor wax nañu bala noo mën a bokk toog ab lal alxari yëpp waaye kenn du toom alxari kenn lu lay neex def jigéen jigéen kay bu jaaw góor góor naa ko tegal sa loxo sama mbag ma teg sa loxo sa mbag ndig yu tegante la ñuy waaj nga teg ndig mu teg ndig nga jàpp bëmax muy bëmax mu naan bësal bësal kay ku ne xam ne boo bësee fan lay jëm bësal joo ñu wax nag bàkkaar lay ci ñoom njaalo guddi njaalo bëccëg mag du wax ndaw du wax te ko am xalaat wax ñu nar la ba jëpp la buñ la mën a naray ray la waxtaan wi nag foofu lañ ko war a yemale am na beneen bande bu gën a dàq boobu dañ ñu ngeen ko wax tey mbaa déwén mbaa déwén jéeg mbaa saabu lu demee te studio waxtaanu koog yéen Talla Diagne ñu ko defal nag mu saadix lay waaw sama rakk la sama xarit la mi ngi ànd ak dégg mam may Yaasin ànd ak dégg mam ku ñax Lamp Fall dégg mam Taliba Seero Fall dégg nga moom ànd ak ay xaritam ak àndandam ak ku ñox dégg nga aas ma penku ak ku ñox dégg nga moom Mara dégg moom di booyam bi koy jaayal bandi ñoom ñëpp yal na yàlla yokkaw fan. saa borom ma ñaan xaritam bi ñuy wax góor a jaxate ak xaritam ak àndandam yëpp nekk France ñi ne Tugal ñu ne Gabon ñi ne Congo ñi ne Espagne ma ñaan. saa borom nangu leen dafa leen ndam ak yërmande ak sama xarit ñu di ko wax Sidi Ñaa ca New York maa ngi leen di gërëm di leen sant sama rak sama doom bu ñu wax ba jaxatee ñu naa ko bas jaxatee mu maa ngi siin boo xam ne di ci biir ndakaaru maa ngi siin bala ci ne ay effet rek la bu soo taag xooli ko sax boo demee boo ko fa diyee mu wér soo demee sax am xappatiku mel ni bukki bu soo ko ci diw mooy yaram lu mu yàqu-yàqu am na fa biteel yoo xam ni danga la ko jaay ci njaay mu rafet kooka ci boppam sama rakk la sama doom la waaye sët la ci Talla Diagne ndax góor a jaxate Talla Diagne mii defar band yi kilifa ma nijaay ma ma bëgg na ñu ànd doon benn bokk ndey bokk bàyyi li ma leen yéene yàlla yàlla defar seen ndam lu ñu ma liggéeyloo lu ñu max loo ñam ca grade boo xam ne bii ak ma yaasin ak ñoom ñëpp ak ay secrétaire yal na ci sa borom def ndam ci barke Serigne Fallou mu ñu am ak Serigne Saliou Mbacké yal na fi yàgg Serigne Modou Aminta yal na fi yàgg Serigne Modou Ablaye Fall yal na fi yàgg ak Cheikh Ndigal ak képp ko di borom l'islam Serigne Mansour yal na fi yàgg yal na sa borom def Sénégal jàmm lépp luy mu siiba yem si Sénégal yal na ko Serigne Touba Sel ak El Hadj Malick ak ulama lu xutaab bi amin ya rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke Serigne Bamba Cheikh Rafa